signé avons li nga xam convention bu ci le convention cadre entre FONGIP ak fonds de développement des transports terrestres nga signé une suñu xarit convention qui est c'est très simple Nous avons dañuy mobiliser euh, li 500 millions 500 millions nous dinañu permettre ñu am effet de levier minimum 2 pour que au moins mobiliser 1 milliard pour accompagner ñi nga xam ne ñoom ñooy taxi. taximan yi nga xam ne ñoo jënd taxi yooyu ci seen Iran leneen li nga xam aussi moo ci nekk mooy am na beneen convention boo xam ne euh, ak ñi nga xam moom mooy la direction générale des transports terrestres euh, fonds bi ak FONGIP ak seen Iran Auto ñun ñoo ko pour xool nan la ñuy gën euh, pour matérialiser li nga xam moom la président Macky Sall la bëgg moom mooy ñu moderniser li nga xam moom mooy transport urbain su ñu transport urbain nak, principalement Dakar ak Thiès donc ñuy wax ne que FONGIP engagé wu na pour euh, firndeel suñu pour pour jàppale secteur bi à travers le ministère euh, des transports et aussi ginaaw bi nga xamante ne def nañ ko dinañ xol ci suñu yeneen mécanisme yu ñu am suñu yeneen ligne de garantie ñu am ñuy def ba gëna renforcer suñu intervention ci secteur bi ndax président Macky Sall loolu la santaane te yaakaar naa ne ko lu amal njëriñ askan wi yépp la. Euh, tay ñu xaatim ben enveloppe bo xamanteni day tollu si juróomi téeméeri million lolu nak lañu la ñu ci lolu moy xol nan lañuy songé songe programme ñaari junne taxi yo xamanteni président Macky Sall le ministre Mansour Faye fas nañ ko jébbal transporteur yi nga xamni ni lañu nek aéroport ak Thiès. tey ji loolu ñu loolu moo ñu fi dajale nekk nag lu am solo ndax fond bi bi ñu ko tegee ak léegi yàggul lu yées si ñaari at la mën naa ni tey xëy na mooy génnam bi njëkk ci wàllu lu mel nii waa oto yi euh, ca cappaandaw ga ca jeexital ba dina doon ñaari junne oto waaw donc euh, juróomi téeméeri millions yi ñu xaatim tey xëy na ñu xool euh, banque yeeg yooyu ba war a mën a yokkaat loolu parce que mën nañ ko placer donc ca lim nga daal bëgg nañu que euh, année bi di jeex ñu génné lu xawa takku ci yooya taxi. waye ñun état li ñu ñor en dehors de cela moy ki nga xamné bëgg nga dem ak dikk nga mëna am auto yu bax auto yu confortable auto yu wóor et surtout li nga xamné moy accident de la route ñu mën ka xex tamit wàññi ko lu bëré bëri euh, gis ngeen kérok bu ñuy def conseil euh, interministériel bi nga xamné premier ministre moko ko nous avons ñu pour accident de la route il faut nga ci tali allah Sénégal nañu amul amul benn euh, comportement yi ñu a andi accident mais ne 23 mesures yi nga xam ne conseil interministériel du 9 janvier mais li ci des kon mooy oto yi tamit interurbain urbain kon bokk renouvellement du parc taxi yi loolu tamit dafay permettre ñu am plus de sécurité routière